alors euh, Régis une commune amal. en même temps aussi enfin euh, maître euh, Bamba Cissé une mauvaise nouvelle parce que qui n'a ramené que peut-être Madjaba Diagne dina saisir exactement le bâtonnier

Euh, sort bi l'homme la la Diouf du risqué dem petit ki n'a xamné que modi bam maître Bamba Cissé Arfan euh, su féké ki nga xamné que modi euh, maître Bamba maître Bamba ma mu ngi koy que ni je vais saisir le bâtonnier pour le cas de maître Bamba Cissé. Madiambal Diagne day roubé xamul lu yoon doxee Sénégal xamu ko day ruube tantôt ñu la greffier la won greffier buy mais xam mais xamul xamul c'est pas un juriste. attention non non non non c'est pas un juriste Fallou c'est pas un juriste am nañu lu ñu xam ci Madiambal Diagne toi aussi Fallou mm, mm. c'est très grave ce que tu dis là c'est pas un virus Madiambal Diagne c'est pas un virus dëgg c'est pas un c'est pas un virus sëñ bi c'est pas un virus <laughs> ñoom ñaar yi mën nañu wax ko mën nañu ko c'est pas un virus su ma la waxee nga gëm ma c'est pas un virus Madiambal Diagne c'est pas un virus sëñ bi yo toi aussi c'est pas un virus toi fii laa yem ma la fii yem c'est pas un virus alors ñu lay déglu F1. boo demee ci juriste yi le ne leen Mbadiane c'est un juriste sax dañu lay porter plainte demal ci magistrat yi wala ci juge yi wala ci kii il les juristes la nga le leen Mbadiane Mbadiane c'est un juriste dañu lay porter plainte wala ñu saaga la parce que yow tu es en train d'amener quelqu'un bu bokkul ci ñoom c'est pas un juriste. alors maître Baba Cissé Arfan. comment comment xama juriste xama xama juriste dina xam vous la porter plainte doo ne damay porter plainte pour dénonciation calomnieuse xam nga lan ah, dénonciation calomnieuse. comment un juriste peut le dire fallout nous porter la plainte tu n'as pas été condamné nga def appel ñu condamné la nga defaat appel ñu condamné ko balaa ngay wax contre plainte pour dénonciation calomnieuse demal nga juriste hmm yow ñu porte plainte nga da ngay porte plainte pour dénonciation calomnieuse c'est pas un juriste un juriste ne le fait pas parce que xamoo xamoo luy justice moo tax ne la pas un juriste xamu ko il connaît même pas ce qu'il dit ruubekat la bon, boo pour moi, journaliste là, moo gën la xam ñëpp def na investigation alors que tout ce qu'il dit ça n'a rien à voir avec la vérité dara comment un juriste ma jox la ma def la ma jox la ay var ma directement vers l'essence mais dama jox benn bu ndaw sénégalais yi dinañ ko da nga ne juriste la keroog ba ñu yóbbu Ousmane Sonko ci le tribunal de Ziguinchor pour la radiation là jamba hmm. Diagne lan la bindoon général de kii l'avocat judiciaire l'agent judiciaire de l'état du Sénégal jamba lan la ko ci bataxalam envoyé ko que l'agent judiciaire de l'état du Sénégal à Ziguinchor. que ni euh, juge bi partisan Sonko la amna famille am te amna beaucoup mbokk bi euh, bokk ak Ousmane Sonko nek ci maireem. du loolu la wax. ok da nga faté benen élément. ben élément. nga déclarer ko incompétent de juger l'affaire un juge qui est en plein exercice yow nga né avocat judiciaire bi mu déclarer le juge incompétent ñom maître Moussa Yoro Diallo xam a kan déclaré un juge incompétent bala muy commencer le procès pourtant bala muy commencer le procès le le procès on a demandé l'agent judiciaire de l'État du Sénégal non non non il peut continuer il peut juger l'affaire Il nga dem ba en plein ba mu que ko joxe verdict moom Madiambal Diagne qui est juriste pour xam que wadi ji xamul droit xamul dara il connaît même pas le droit mu bind l'agent judiciaire de l'État du Sénégal mu déclarer le juge incompétent Sabassi Faye incompétent un juge qui a fait tout son procès ba mu ba ba délibéré yow un journaliste pour wane ne que il connaît rien de la justice moom Madiambal Diagne loolu beneen affaire là yow connaît rien weesu na yow ñu porter plainte nga ne d'ailleurs da ngay porter plainte pour dénonciation calomnieuse alors que l'affaire là yóbbuwuñu ko ci kanam ñoom plainte plainte rek la ñuy annoncé jugé wuñu Juge ñu condamné kenn yow ngay wax tu réplique de de de de pour pour dénonciation calomnieuse que madame dara ci justice dara dara dara donc quand il me dit que c'est un juriste il ko may Ndour di complot di wax ni juriste la mu répondre c'est faux c'est archi faux c'est pas un juriste dem journaliste d'accord journaliste mom métier métier bo et ken même si kat jaay gi mën na suba bu man man man journaliste mais concernant les juges les les juristes les juristes dañoo fiir dañoo xam métier. alors alors même les les les les les les les les les les greffiers là. du greffier la lan fa tu crois que les corps là les corps là

porte plainte jël plainte client am déposé ko yow Madiambal Diagne nga ne da ngay saisir l'ordre des bâtonniers, le bâtonnier pour me sanctionner un avocat moy manam yo xamoo sa liggéey l'avocat là a fait son travail correctement alors benen bi c'est pas maître Bamba Cissé il est le président de cette poule des avocats là. c'est pool poule d'avocats ñep la. donc bu naré porter plainte Maître Bamba Sissé n'apporte tous les avocats du composé. Du composé, cette poule d'avocats-là. Maître Maître Clédor. Maître Fall. Parce que l'idée ne vient pas de Maître Bamba Sissé. C'est la poule d'avocats de Ousmane Sonko. Nous avons déposer plainte contre madame Madjamba Donc madame Diagne, si il a à saisir le bâtonnier, n'a pas saisir pour cette poule d'avocats-là. Il a raté sa cible mom xamul sa mom xamul moom Madiambal Diagne xamul. xamul sa cible xamu donc ku mel noonu bu xamulé bu juumee dañ koy recadrer ne ko da nga juum. li nga def ni yoon waxuko mais est-ce que yëf yi du dépasser état est-ce que yëf yi du dépasser est-ce que manam yëf duñ ëpp doolé est-ce que jotoon ñu waxtané li nga xamné ko la personne de Madiambal Diagne n'enfreint pas le développement de l'État. le fonctionnement de l'État. Hmm. l'appareil État non Madiambal Diagne mënu ko arrêter dafa touti c'est une petite graine ci état je crois que mon xam na est état dafa devant ci Madiambal état Il dit état du nit bi man man gis na état mu ngi ni agir Madiambal enfreiner le fonctionnement de l'état du Sénégal dafa Il motul sa alors merci beaucoup Alpha jaajëfal le la bu baax a baax bàyyi nga justement ak téléspectateurs merci de votre fidélité encore une fois de votre attention renouvelée de sur exactement nos programmes bàyyi d'Al Tagoto, téléspectateurs alors comme d'habitude sëñ Fallou di la jaajëfal di jaajëfal sénégalais yi ñuy doon suivre ci direct TV. Hmm. donc euh, ñu am fii njëriñ parce que ñoom ci émission bi la ñu bokkan hein, sénégalais yi di leen jaajëfal jaajëfal les sénégalais de la diaspora ñu nekk France nekk Espagne nekk Portugal nekk dans